you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit i got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it got facts over facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was built to last, yeah. Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and make a statement I'm Gonna consequence, I'll is confidence Dreams and some honestness I'm not here to save That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No patient But my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages A vacant modern kingdom for the taking fake shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up ak yooyu nga xam ne yooyu moom yooyu tekkiwul dara loo xam ne mën nañ ko gis waaye bu fekkente ne dama dama la wax ah, mbindaan mbindaan ab baat la waaye baat boobu dafa am yeneen baat yu nekk ci biir ndaxte boo jëlee mbindaan nga nga tas ko ci biir mbindaan di am bind ci mbindaan di am bind di nga am ak ñu yokk ci më boobu ak yokk ci aan aan buñ koy wax mooy loo xam ne dañ koy yokk ci ci baat dafa dafa am lu tekki boo gisee sax ñun suñu suñu jotaay wi ñu tuddee ko wax waxtaan waxtaan da gis ne daa am wax wax mooy mooy ñu def nii mu am euh, waxtaan mooy wax joo xam ne taxu koo am solo taxu koo am solo bu ñu koy wax mooy mooy ñaari nit bu ñuy toog di waxtaan am na yoo xam ne bu ñu paree am na yu bari yoo xam ne ci waxtaan suñu paree dañu duñ ko jàpp. bu ñu nag waxtaan mooy wax joo xam ne xam nga yi ñuy xam nga li ñuy jàng li ñuy ñëw di ko waxtaan yëpp ah, benn eh, mbir mu ci nekk rek soo ko doon jàngalee mën mën nga ci def ñetti waxtu waaye fii dañ koy jël rek tënk ko tënk bu gaaw moo tax ñu ne wax tànn day jël dañuy jël ay wax rek am luñ ci tànn ñëw ñëw andi leen ko kon boo gisee an wala aan wolof di ko yokk ci yokk ci baatam dafa am lu muy tekki su ma ne melentaan eh, aan boobu mooy tekki ne loolu dafa tuuti su ne ah, nelawaan mooy koo xam ne day nelaw euh, ay nelaw yoo xam ne taxu ko am solo reetaan mooy ree ree joo xam ne tax ko am am solo putantaan koo xam ne da picc boo xam ne dafa tuuti waaye nag waaye nag picc bi lu tuuti tuuti yenn saa mu mu ñëw lakkal lu it kon kon ngeen ngeen gis ne loolu la am na itam wax waaye itam am na waxet wax waxet waxet mooy waxet buñ ko jëlee buñ ko tegee ci ci baat mooy day mel day mel ni da koy dindi day mel ni day mel ni da koy dindi gis nga boo xoolee baatu déet wala déedéet wax waxet day mel ni nga waxu pare daal daal di donc yooyu yëpp mi ngi ci ah, mi ngi ci ah, baati wolof kon loolu loolu loolu la ñu bëggoon rek njëkkee ko ci cosaanu ah, baati baati wolof leneen li nga xam ne bëgg nañ ko wax mooy baati wolof boo boo koy xool dafa baaxoowul Euh, wolof baaxawul di sos ay ay baatam mu nekk baat yu bari tànk buñ ne tànki baat mooy li li di woowee silaab buñ ne liggéey liggéey ñaari tànk la am buñ ne bët benn tànk la am buñ ne euh, yërmande da nga gis yër man ak ne donc ñetti tànk lool loolu la ñu tànk wolof baaxowul di am ay ay ay baat yoo xam ne dafay bëri tànk ñaare benn tànk lay am wala ñaari tànk waaye dina am na tam yenn saa yi ngeen gis lu ñuy woowee baamtu ndaxte wolof xam na loolu luñ njëkke ci ci ci suñ jotaay wi buy sos ay baat yenn saa yi mu mu jël benn baat jóge ci dem ca leneen maanaam soppi benn baat yóbbu ko feneen daal di day def lu ñuy woowee baamtu maanaam day mel ni su ne maanaam su ma ne ah, xam xam benn baat la muy muy loo xam ne dañ mooy mooy loo xam ne dañ koy jëf jëf ji li ngay jëf loolu loolu xam boo jugee ci xam nga ñëw ci xam-xam nga gis ne baat boobu buñ ko buñ ko euh, bamtoo dafay jugee ci ci loo xam ne loo xam ne jëf la nekk ci def-def am na xam xam-xam am am am euh, dégg def wala def-def gis gis-gis yooyu yëpp wolof da wolof loolu wenn xeet la ci wolof ni muy mën a soppee baatam ni muy mën a jëlee benn baat am ci beneen baat waaye itam am na ci ba léegi euh, loo xam ne euh, bu yàggul gis ngeen euh, ci ci ci ci ci politique bi wenn waay siiwaloon na lool loo xam ne dafa nekk ci ci ci baati wolof mu naan layam layami layam layami xam nga xam nga booy xool ci àdduna dara bu xewee rek ku ci nekk euh, fa nga xam ne ci fa ngay yëngu euh, foofu ngay xoole foofu ngay xoole dafa baax ci ci dëkk ci ci dëkk bu nekk ndaxte àdduna bi dëkk yi dëkk yi taxaw yëpp noonu noonu lay doxe dara bu xewee ku ci nekk rek da nga xool fa la ca fa la may xam-xam euh, nga nga nga yem foofu dëkku Afrique yi rek ngay gis ñaare dara bu xewee ñëpp di ci wax maanaam sax baax na sax dara bu xewee ku ne wax ci sa xalaat waaye wax sa xalaat toog ci sa saal wala toog si biir sa biir kër dinaan sa ataay ak say xarit nga ngeen wax sa xalaat loolu loolu benn mbir ku ne sa nga ko def waaye eh, eh, yëkkati waxukaay di wax adduna bi yëpp di dégg di ngay wax ci loo xam ne eh, amuloo ci xam-xam wala loo xam ne tegaloo foo xam ne dafa wóor ah loolu moom dafa doy waar bu ko defee loolu bokk na ci lii doxal réew man euh, ci la xewoon ba ñuy wax layam layam yi man loolu ma loolu ma ci neexoon saa suñ saa su ñëwee rek nit buy wax man baat yi laay xool ndax baat yi ñoom gën a amal boo xoolee layam layam yi layam layam yi da gis ne euh, benn dañuy jël baat da bamtu layam layam layam yi bu defee yow da ngay foog ne baat bi euh, ñeenti tànk la am wala juróomi tànk la am waaye nag waaye baat bu am ñaari tànk la muy layam ñu ñu daal di koy bamtu. ba pare nag yokk ci i layam layami bu ko defee loolu benn mbir la ñaar ñaar ñaareelu mbir bi nga xam ne bëgg nañ ko wax fii mooy xam nga baat bu buñ jëlee euh, benn baat dara euh, maanaam masalan su ma jëlee euh, dara tuddee ko xaalis wala garab tur woowu ma ko jox muy xaalis ak ak ak la nekk xaalis ci dëgg-dëgg ci ci gis-gis bokkuñu dara nit ki mooy mooy mooy jàpp ne waaw ñun de dañoo lii nii lañ koy tuddee loolu mën mën ngeen dem feneen ñu tuddee ko neneen loolu la ñuy woowee l'arbitraire du signe maanaam booy xool baat bi ngay jël di di ko tuddee dara ñaar yooyu bokkuñu dara waaye am na benn sew-sew mooy am na yenn baat yoo xam ne buñ koy sos dañ koy dañ koy dañuy xool euh, li muy junj jël ci màndarga sos ci baat bi boo gisee nee na layam layam yi layam layam yi day mel ni nga bu ne layam day mel ni ah, wax joo xam ne leerul buñ ne par exemple nit ki dafay xëbër xëbari yi xëbër mooy day mel ni sa yére nit nit bu baaxu yére bi ni muy def coow li muy def noonu coow loolu lañ jël rek sos ci baat bi muy xëbër xëbër am na tam yeneen baat tëñëx tëñëxi cuqum cuqumi koo xam ne daf koo xam ne dafay dafay dafay sàq mi dégg nga te te ni mu koy defee moom moom mu xaw a doy waar. donc loolu loolu gis nañ kon kon wolof li bu njëkk bi ñu njëkk wax mooy wolof ni muy sosee ay baatam te bu koy sos dafay daf daf koy bamtu. fi may jeexalee mooy ma ma ñaan leen wala bokk ma laaj leen yéen ñi nga xam ne ah, ak ñoo ñoo bokk làkk yi wala wolof bi nga xam ñëpp ñoo ñoo ko moom. ñu ñu ànd ci lii euh, te te di ko sottandee xalaat bu ngeen ci bu amee yenn yenn baat yoo xam ne dañ ko sos wolof da ko sos ci euh, ci baamtu bu ngeen amee rek bu ko defee ci commentaire yi dinañ ci euh, dinañ ko dinañ ci sant loolu ndax dinañ am na ñun ñëpp ñoom ñu mën a jàngal ci suñu biir. mu nekk mu mel ni nga ne xam xam xam wala nga ne wala nga ne parax parax parax donc mën na nekk parax parax mën na nekk. rajax rajaxi yooyu yëpp yooyu yëpp képp koo am rek baatu wolof boo ci xam rek boo xam ne mën nañu euh, nit ñi mën nañ koo fàttaliku wala boog mën nañ koo jàng ngeen def ko ci ci commentaire bi dina nekk loo xam ne dinañu amal njëriñ loolu. Euh, kon foofu la ñu yem ci ci pàcc mu njëkk ci cosaanu xarafi ci cosaanu baati wolof di leen di gërëm di leen sant bi ñaan yàlla mu dellu ñu taafeex ba ñu dellu fi ba ñu si fi beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah